ñaari combat la war a bëree. non loolu doy na waar. day bëre combat am bëre revanche am. mais loo ci mën a dégg bii bi. Euh. combat bi arbitre baa ngi a leen ba moom bébé booy bambara. oh oh arbitre bi nee na leen ndax pare nga. bi sifflé na seen diggante. bi sifflé na. Kaani Sadam mi ma gis dafa nar a dox ci kaw. Kaani Sadam diree ku ko. moo ëpp doole ndax moo mën ci kanam lañ ciy xam dara. ndeysaan. hey door na ko. la. Bébé Boy Bambara dafa décidé si. door na ko xeex nañu jël na ko. lii la doon wut pour jàpp jël na ko. ndeysaan jàpp na ko ma ngay door ci suuf. ndeysaan Kani Sada ma ngay door. dana ko door mu kaaw. doole yëngu kaaw jël na. jël na ko. ma nga ca suuf. jël na ko. bot na ko. daan na ko. bot na ko mu daanu. lamb ja jeex na. loo ci mën a dégg bii bii. doole amul. waa CNG war nañ di xool. doole yamul. combat yi nga xamante ni moom la ñuy monté. كان سلام غاي داو دولا يمون دولا يمون بوكو انترنتي لي مو خاو